eh teg leen teg leen teg leen teg leen mbaxana mi Gora Sock Fils de Balla le 14 la incha allahu rabi novembre dañ ko commencé woon di xëccoo Iba Mar Diop ba arène nationale le 14 août kan moo yóbbu mbaxana bi. man doomu géejuwaay bi moo yóbbu mbaxana bi. dama yóbbu mbaxana bi te dafa dafa dafa yara di ko te naa ko yar le 14 août allah rabi. mënoo maa jaxase ak sénégalais dama lay duma daan la. wala xiif seen 100% bi laay tas. kii tapet la morom muy forcé nii mais le 14 août la xam ne ba si góor a koy bay a ah, mbokk yi Jamaïcain moo woote ànd ak jam production la 14 août Fils de Balla ak Gora Sock waaye Jamaïcain yamul foofu kéwél laay jël daal di koy boole ak Jokkel mbokk yi loolu yëpp nag ci seen affiche point com dong ngeen ko mën a amee yéen ñi nekk ci diaspora bi Jamaïcain nee na 4,99 euros ngeen ko mën a seetaanee waa Sénégal 2000 francs dong kon mbokk yi bés baa ngi noonu le 14 août arène nationale Fils de Balla ak Gora Sock jam production ak sponsor leader bi tuuti il faut mbër nga ànd ak entraîneur ak oh foofu la war a yem war nañu yegg ci foo xamante ni mbër mi day def li muy def ci cumikaayam ànd ak ñaari butéel ak mélange beeg entraîneur am ñu sotti ko mu sëgg bëree wallaay ndeysaan waaye gàddu saak ñu ñëw kenn xamul lu ci ne di sottante ak di saaga mbër ma nga xamante ni bëriwuloo adversaire ama ko waroon def defu ko yooyu tànk jógul ci làmb làmb civilisé gul te dama lay wax ni la loolu mën na indi ëmët ci làmb ndax règlement de compte baaxul. lu leer nga wax benn baax CNG nag dafa war a assainir ndax ki ñu fi fekkoon muy président Alioune Sarr dafa ñëw fekk fi ay dëkk fekk fi ay xànc fekk fi ay garab mbër daanañu taxaw mu dëkkante kenn xotti mbubu morom mi ñu xaañ ko deret yi gas-gas Alioune Sarr jëlee na ko fi. dëgg la microcentral daana wax ba wax lu ëpp ñu yuuxoo ko. làmb mbër daana sax ñu damm siège yóbbu bagage ya fa nekkoon làmb daana mbër daana toog ba sept ci ngoon ñu doog koo tuusal mu jóge këram ñëw di bëri yooyu yëpp bi mu amee Alioune dafa ñëw assainir làmb jëlee ko kon ñi ko remplacé sañu ñu def lu yées li Alioune Sarr defoon. mais jafe-jafe yi dafay gën a bari xoola géew bi ni mel. tañu ni mbër ñaari nit la war a àndal. wallaahi. léegi da ngay ñëw gis géew bi ñëpp dugg ci biir. xoolal ñii taxaw ñu leen di tuddee ay journaliste de presse ñu ci bëri dañu amoon fu ñu daan taxaw tey ñi ngi ci biir géew bi fii tey boo sànnee dara mu dal kenn musiba am na kon war nañu xoolaat seen taxawaay CNG bu bii bu làmb tëjee war nañu dëppaat <laughs> ndax nag premier vice président chargé de lutte avec frappe mi ngi Balla Gaye ngi dugg ci géew bi waaw ah, te dañu tere mbër muy bëre am licence di dugg ci géew règlement bi daf ko tere. mbër mu am licence. di compétir. amul droit dugg ci biir géewu laaw. te mi ngi nii di am. voilà arbitre yaa ngi koy wax. arbitre bi loolu lay déclaré. gis nga parce que réglement bi daf ko dàq. xoolal yéen bu diis gis nga. gis nga gis nga gis nga gis nga bu diis. yow du yaay lijjanti kii dama toog. Oh. gis nga li gën a yàq làmb xama lan la tere lii kii kee ñëw def ko nga bàyyi ko ci. waaw xam nga dañuy wax ni tere yi amatul ci làmb. lan yi. dañu wax ni tere warul. tere waaw tere waaw. mbër yu mag yi ba léegi ñu ngi indi tere ci biir làmb waaw loolu dëgg la te kenn waxu leen simmi leen ko wala génn leen ci biti. loolu lan la. Uh-huh. dafa am loo xam ne dañ koy tere mbër yu ndaw yi di ko di ko accordé mbër yu mag yi. Uh-huh. gis nga liy dugg ci géewu làmb mbër yi ñii ñaar ku nekk fukki butéel lañ la laaj. boo xoolee li dugg ëpp na ko. dëgg la 15 minutes yi ñu leen laajoon. 15 minutes yi ëpp na ko est-ce que règlement dafa war a tënku ci dagg xaalis. wala ndeysaan dagg waratu la am. li warul am mooy nee nañu lii tere nañ ko ku ko def yoon day dal sa kaw na yoon dal sa kaw waaye dagg xaalis. wala ndeysaan koo xam ne nga jëlee ko million mu def li mu bëgg def jaral na ko. waaw. géew baa ngi noonu. mais dafa mel ni micro kii dafa saturé ah micro fa dem waaw waaw waaw. mais waaw waaw waaw waaw waaw. ñaari mbëri seen préparation yàgg na tamit. waaw yàgg na trop. waaw. léegi nag. waaw promoteurs yi ñoo nekk nii ci biir géew bi. Mm-hmm. ànd ak jamaïcain. Uh-huh. ñu war a présenter mbër yi. Uh-huh. mbër mi 15 minutes yi ñu ko mayoon su jeexee benn minute bu ci yokkoo. 10 000 dañ koy dagg 10 pour cent. chaque minute. waaw non. chaque minute 10 000 francs. dinañ la dagg chaque minute 10 000 ba pare dagg la quinze pour cent. ah. waxuma na 10 minutes yi. waaw 15 pour cent lañ lay dagg. ba pare nag minute bu ci toppaat ñu daggaat la ko 10 est-ce que règlement bi dafa war a nekk fii di dagg xaalis. du yoon foo ñu wax ko de. warul nekk fii di dagg xaalis. du dagg du yoon warul am bu mu am. bu sanction jotee nañ la suspendre. Mhm. làmb warul guddee. dëgg mais tey làmb mi ngi guddee di dem heure yoo xam ne lépp protocole la. Mhm. yaa ma neex dem jëli parrain. indi ko ci biir géew ñu taggante ku ne wax sa maam lu baax. ñu delloo parrain ba. ñu doog a siffler combat bi. beneen combat ñëw. ñu wàcce beneen pare. réglement bi waxul loolu. dañuy heure de bi bu jotee. mbër mi bu xisee yegg ci biir géew bi. temps mystique bi boo ko mayee bu paree. présenté mbër yi bu fekkee micro central bi pour en activité. siffleel combat bi. loolu la règlement bi wax. loolu la réglement bi wax waaye ñii tënkuwuñu ci réglement déedéet. li moom moo leen neex rek. waaw ñu def loolu. foofu nag bu fekkente ne làmb toll na foofu tamit jafe-jafe yi day gën a bari. yaa wax làmb mi ngi dox. mais kenn asaniiru. billaay wax nga dëgg père. waaye bu ngeen ji jàkkaarloo ak ñun après dañu continuer direct bi ndax Modou Baye Fall moo war a organiser fii suba. suba Modou Baye Fall wax na la ko. suba waaw moo war a organiser fii suba. Toro Lamine. maa ngi euh, nuyu góor a suuf su ko bëggee am dara maa ngi mag bi ci xar yàlla kenn moom voilà Fils de Balla ginnaaw noonu Père Pala su bëggee dara ci làmb ji. du ko déparé baga day indi li traditionnel pire et dire. arbitre sifflé na Fils de Balla góor a soog. moo féete seen droite. jóge ci dafa digganteem ak Tyson cokkaas na moom góor a soog Fils de Balla ci ndam la. jóge góor général Malika. nii mu taxawee. waaw xeexul day bëre indi simple lay bëre si. ah moom nag dafa waroon a xeex nag per waa non xeex bi la war a njëkk de. gisoo ko. Gora Sock fils de Balla. fils de Balla moo bëgg xeex bi. Ah. waaw mais Gora. Gora ak fils de Balla traditionnel bi la bëgg a yóbbu sa waay. Gora eh. cokkaas. Gor Gora Dóor daw nañ jàppante xeex la de combat sa la de. combat xeex la. ah. combat xeex la fils de damante baaraam. ndeysaan sama xel dem na ci Youssou waaw ndeysaan ñaari mbërëm ay bëre ñaari mbërëm ay bëre xol bi toogatul Youssou Ndoye ñaari ñaari mbërëm Fils de Balla dernier combat mook général bu Malika la mu am ndam ci moom si Diop Iba Mar la woon waaw Iba Mar Assane Ndiaye ko tëggoon tey jame kenn moo leen fi boole wallaay ñaari mbër yi di leewaatoo Fils uh-huh. xeex bi la bëgg xeex bi la bëgg moom Fils de Balla waaw gisoo ko ah jàppante nañu ah ñaari mbari roofoo nañ ñoom ñaar ana Modou Lo foo féete Balla Gaye nga ca kimi kaay ba non góor soog bul bàyyi xale bi ci sa kaw ngemb waaw mbër mu mën a ngemb la non bu ko bàyyi ci sa kaw ngemb mbër mu mën a ngemb la waaye nag loxo bi bu libre dina mën a dina mën a dugal perki waaw gis nga mu ngi koy fàq ma ngi koy yëlëb de góor soog bu bàyyi xale bi ci sa kaw ngemb Fils de Balla daan na ko daan na ko Fils de Balla daan na ko daan na ko Balla daan na ko Balla Gaye taw na waaw Balla Gaye taw na Fils de Balla daan na ko Lamine. laa ilaaha illallah. Lamine. waaw daan na ko jël bu rëy Balla Gaye dugg na ca géew ba Leuz. waa xam nga. daf ko ji daf ko sàcc téye ko. waaw te góor a jàppul. waaw mu bénéficié ko si jàppoo bi. waaw te ñoom ñaar boo leen gisee ni ñu taxawee. dafa mel ni Fils de Balla daf ko sàcc doole. waaw ci biir jàppante bi. Père Balla waaw du sàcc doole. Gora Sock am na doole mais Fils de Balla ay avantage am. day loxo bu dugg ci ngemb. moom laa la wax bi problème bi mooy Gora Sock dafa waroon a xeex. Ah, dafa waroon a dëggal boppam ci xeex bi. dafa moytu xeex bi nag. combat am na combat yoo xamante ne xeex moo la ciy génnee. dafa moytu xeex bi. dafa moytu xeex bi. arbitre bu mu sifflé dafa waroon a dëggal boppam ci xeex bi. te gis nga li ma la wax gis nga li wax. waaw. ci biir moytu xeex bi. waaw la ko Fils de Balla sàcc jàpp ko. waaw te gis nga ci biir jàppoo bi. waaw Fils de Balla dafa ëpp doole. waaw. góor a soog ci combat bi. waaw waxoon naa la ko de. daf ko ëpp doole. billaay ko. waaw nee naa ko bu ma indi woon góor a soog góor a ta bàyyi Fils de di ko manœuvrer góor a soog bu bëggee daan Fils de Balla. da koy imposer ci xeex ci bëre ci lépp. Ah. war ta bàyyi Fils de Balla mais bi arbitre sifflé laan la kii xeexul. ni mu taxawe xeexul. ku bëgg a xeex doo damm sa ndigg. non non ba pare di léwtoo di léwtoo. góor a soog daa ah. juum. Fils de Balla nañ ko bàyyi xel de man Fils de Balla bu sérieux champion la. am na doole te yegg si na ci kaw gaay yi Lamine. Fils de Balla dafa mën a bëre problème bi mooy nit ñi bàyyiwul xel ni Fils de Balla dafa mën a bëre. Lamine moom benn ndëkkata bu taxaw rek lañ ko teg. Lamine dafa mën bëre. Lamine dafa am gis nga wës jàmbaar Fils de Balla ko njëkk a daan. ah. wës jàmbaar bi muy soog a dugg ci làmb waaw ay jël yu rëy ay jël yu rëy rek la doon daan. waaw def 5 combats 5 victoire. dëgg yokk Fils de Balla Fils de Balla freiné ko. Mhm. Ondinga bu parcelle. toj na bëre simple bi. kanti Ondinga. bu parcelle Ondinga. toj na bëre simple bi. toj na ko Fils de Balla na ko zongale ba biir weex mu door ci suuf. laa ilaaha illallaah. général bu Malika. waaw wanewul boppam ci digganteem ak. Fils de Balla wanewul boppam ci digganteem ak général. billaay tey mu jël góor a soog. nee na ma mbëru bëre simple yi laa. ñoo ngi nuyu Père Ba.

kii mooy président jàmbaar Wrestling Academy. Oh. non non moo ngi nii. nga seetaan combat bi ñu wax ko. du combat bi ñuy jàppante ngeen bi ci côté Gora Sock. waaw Gora Sock dafa warut a bàyyi Fils de Balla di ko manœuvrer. bu Gora Sock ni mu toll ak taay bi mu am waxoon naa ko ne ko boo bëggee daan da nga koy imposer gëdd ko ci xeex xaajale ko génne ko lamb ji. non dafa waroon a xeex. xeex bu sax. xeex de Balla bi mu defee nii rek nee naa la lii. Gora Sock dugg na ci avantage Fils de Balla mooy mu sëq gaño gi boo xoolee da koy xoolal loos ba lay am manœuvre ca kaw daal di dugg ci avantage am daal di ko rof ca xabal wéeru ko koy ba waaw félicité waaye encouragé la tamit sa lan la. ku xam làmb. waaw waaw dañuy dañuy féli dañuy félicité Fils de Balla. waaw il a fait un très grand combat. Gora Sock ñu koy encouragé démérité mais Fils de Balla a a fait un excellent combat daan na ko ñu koy ñaanal ndam ni jikko jox góor soog mu prépare lamb nii la. Ah. bëre ak daanu moo fi am. lamb ji neex na di remercier jamaïcain. vraiment jamaïcain ñu koy remercier ko ñaanal euh, yeneen combat yu gën a neex topp ci. Ah. lamb nag nii la. Ah. daanu daan ak match nul mais mais vraiment kontaan nañu ci lamb ji. waaw di féliciter encore nag. Fils de Balla a fait un excellent combat. gis nañ ni euh, jàmbaar liggéey liggéey bu jaar yoon. teg ko ci professionnalisme tey ñu bëre ñaari combat perte ko ban jàngat ngeen ci war a am ak saison bi nga xamante ni moom la ñuy dégmal bientôt. xam nga booy bés yu neex ci naqar lañ koy waajee. waaw c'est dans les jours difficiles. que l'on prépare les beaux jours. dëgg la wala tubaab wax donc defaru jàmbaar day doog a juddu di bëgg a téye xale parcelles yëpp jàppale leen. waaw ci loolu lañ ne. Mhm. donc défaite ak victoire ñoo ànd. waaw a na ànd ak fils de balle. xam ni mbooloo naataangoom la daan na ko moom dana daan keneen. Ah, waaw waaw di félicité waat fils de Balla. di ko wax ndam yi yàlla na ko ji. mais mais di ngeen félicité jamaïcain. waaw encore une fois. Ah. xam ni jamaïcain ay bés yu mag ñu ñëw dina ko tëgg déwén bu ne xeex. waaw waaw waaw. jërëjëf jërëjëf jox ko jox ko jam. Lamine. dañuy sant yàlla bu baax julli Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. sànq lu père ba wax si laay ñëw nee nañ félicité jamaïcain moom lañ war a félicité. fu ma toog dama koy wax xaw ma DER xaw ma Prodac xaw ma Fonsip xaw ma état sama état tey su ma mënee dem bay def lii moom moo tax. moo la ñemeloo. musuma tëgg benn combat bu naan amateur na combat ñàkk dëgg la combat bu ma bëgg a tëgg ci réew mi tey su ma demee mu jox may mooy jàppale bi may bi may formé may bëre booba yii xewul ca Pikine jàppale nit rek la xam. xamul amul mbër. ba ca ñoom bale bi ba fii ñu yegg si waaw waaw loolu rek la xam na ko yàlla defal jàmm waaw kattanal ko si barke Seydina Mohamed sàmm ko sàmm ko <laughs> waaw waaw remercier Lamine di ko ñaanal fan eh, teg leen teg leen teg leen teg leen mbax na mi Gora Sock fils de Balla le 14 août la incha allahu rabbi mbax na mi nag le 21 novembre dañ ko commencé woon di xëccoo Iba Mar Diop ba arène nationale le 14 août kan moo yóbbu mbaxane bi. man doomu géejuwaay bi moo yóbbu mbaxane bi. le 14 août dama yóbbu mbaxane bi te dafa dafa dafa yara di ko te naa ko yar le 14 août incha allah rabi. mënoo maa jaxase ak sénégalais yi dama lay bi laay tas. kii tapet la morom muy forcé nii mais le 14 août la xam ne ba si góor a koy bay a ah, mbokk yi jameekee moo woote ànd ak jam production la 14 août fils de Balla ak Gora Sock waaye jameekee yamul foofu kéwél laay jël daal di koy boole ak jokkeel mbokk yi loolu yëpp nag ci seen affiche point com dong ngeen ko mën a amee yéen ñi nekk ci diaspora bi jameekee nee na 4 virgule 99 euros ngeen ko mën a seetaanee waa Sénégal 2000 francs dong kon mbokk yi bés baa ngi noonu le 14 août national nationale fils de Balla ak Gora Sock jam production ak sponsor leader bi tuuti